kan la fas yéene nañ ci toogal Doudou Sané ci siège daa ni du entraîneur lu xew ñoom ñaar ñu ngi noonu bi mooy seen troisième journée ci wàllu classe bi bi nga xamante ni Makan Mbengue moo mu nekk combat bu ñëpp doon xaar. Doudou Sané deux combats deux victoires six points Boy Diakhao deux combats deux défaites zéro point arbitre bi sifflé na Doudou Sané moo la wan ginnaaw Boy Diakhao moo la wan moom nga jàkkaar lool arbitre bi sifflé na Doudou bu gagné combat bi day qualifié final direct Doudou Sané bu ñàkkee combat bi ah dañuy xoolaat de combinaison bi xool fu ñuy mujj en tout cas ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo Doudou Sané Boy Diakhao Boy Diakhao Doudou Sané Boy Jaxaw mu ngi déplacé wu bañ Doudou Sané jàpp ko waaye Doudou Sané mu ngi dox ci kawam lentement Doudou Sané Boy Jaxaw Doudou Sané Boy Jaxaw Doudou Sané Boy Jaxaw Doudou combat bi ñoom dem gauche ba mu yàgg dox sa kaw li may wax rek naan saab ñaata ak ki benn ñaata du benn ndax duudu saane ku ne xam na ko ci lutte traditionnelle bi mu ciy def liggéey bu am solo bëre ndaanaan bu ne ci làmb ci lutte traditionnelle bëre caaka fay ma fekkee ko bëre naa ak Serigne Ndiaye 2 ma fekkee ko bëre naa ak ma fekkee ko arbitre bi sifflé na ñoom ñaar arbitre bi ngi wax booy jaxaaw naan ko taxawal nga bëre boo bëriwul da nga am problème arme bi booy jaxaaw duudu saane booy jaxaaw duudu saane ñu nga ci ñaar ñu ngay lewaatoo duudu saane booy jaxaaw combat bi Doudou Sané Boy Diakhao ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar arbitre àtte na avertissement Boy Diakhao benn arbitre sib lewaat na Boy Diakhao a ngi dem ma ngay demee wet di déglu Doudou Doudou Sané mu ngi koy déglu combat bi daa mel ni mooy doon combat bi gën a yàgg ci combat Doudou Sané yi Boy Jaxaaw Doudou Sané Boy Jaxaaw Doudou Sané ñu ngi lewaatoo ña ngay lewaatoo ñoom ñaar ña ngay lewaatoo dara xewagul Doudou Sané Boy Diakhao ñu ngi ci combat bi ba tey ñu ngay lewaatoo Doudou Sané Boy Diakhao Doudou Sané Boy Diakhao Doudou Sané Boy Diakhao ñu ngay lewaatoo ñoom ñaar Boy Jaxaaw Doudou Sané ñu ngay ñoom ñaar lu nara a xew dara xewul ñoom ñaar dara xew ngay lewaatoo arbitre bi ngi naan leen bëre leen bëre leen bëre leen bëre leen arbitre baa ngi naan leen bëre leen Doudou Sané Boy Diakhao arbitre bi attewaat na arbitre sifflé waat na Doudou Sané Boy ñu ngi lewaatoo lii da neex na moom ñoo taxaw si kanamu caméra ne doo fi jóge loolu article 47 la xam naa loi bu bees la bu ñëgut ci làmb ngay lewaatoo ñoom ñaar ñu ngay lewaatoo Doudou Sané Boy Boy Diakhao daa bëgg a xeex waaye Doudou Sané moom pare na pour recevoir coup waaye bu la dóoree ah nga xam ni lépp dëgg ñu ngi lewaatoo ñu ngi lewaatoo dóor na xeex xeex kurpañ dóor na ko Doudou Sané nga dóor laay mu koy dóor fàqat na ko fàqat na ko Boy Jaxaaw daan na Doudou Sané daan na Boy Jaxaaw jógal ci kawam Doudou Sané Doudou Sané du na Boy daan na Boy Jaxaaw daan na ko jël bu amul benn wérén Doudou Sané qualifié na final lay am final Doudou Sané ndeysaan ma ngay wax ak moom ma ngay waxtaan ak Boy Diakhao ndeysaan Boy Diakhao trois défaites la am bi trois combats trois défaites Doudou Sané nga tàcc mu ngi tàllal loxo ndeysaan li mooy làmb ma ngay dem ma ngay dem daa am doole daa am doole daa am doole dëgg